tey le jour Saint-Valentin bu baax parce que bu ñu war a jox mbëggeel àqam maa ko xam dag ak jàmm. waa xanaa def xam nga rek tey vendredi la ñoo ngi xëy nii def suñu yere olof di xaar ba ngoon ngoon maa bi noonu ay 18h 19h nga dem defar ba mu baax dem salon bu ko jaree sax nga dem salon dem def sa make bu baax def sa xam nga yaa ma gën a xam pose sa greffage bu baax sañse sa sañse bu baax def say talon. cokki-cokki ànd ak monsieur. dama ko zirig rek ma jënd 100 francs soow rek zirig ko. Eh, daf koy fi eh, célibataire rek ndaxte jigéen moom fu mu toll même bu fekkente ne marié wul sax dafa war a jóge jóge moom saa boo yeewoo da ko war a def sangu ba set di xeeñ bu neex di dox ndànk di wax ndànk pare ci sa bopp chaque jour san pa bu la fekkee rek yaa ngi pare jigéen dafa war a moom loolu. noonu la yu féroce ngay dem dem dem ci soxna ñaaña mu jox la yu baax ah yu baax lay joxe yu baax lay def dem soxna ñaaña moom waaw femme chic yi xam nañ ko dem ñu jox la xeetu baax baax yooyu nga organiser def sa Saint-Valentin bu baax sa waay kontaan xeetu cuuraay yu baax xeetu yëfu jigéen buy sëyi xeetu centeur yu baax ay nuisette centeur yu baax sa xeetu baax baax yoo xam ne xale du ko gis xale du ko dégg loolu daal laa xam. non xam nga weekend prolongé la bii moom day neex parce que lendemain bi doo xëy di liggéey bu lendemain nga jël sa cadeau. sañse lu baax yóbbu bureau ba wane né, sama Valentine moo ma jox lu feet la boo xam ne at ba at la ñu koy feete bu doon feet boo xam képp ku cinq war nga partager des moments de bonheur donte da nga koy parler chaque jour sax mais tey ji dafa dafa ko dafa doon bis bu spécial quoi pour man waa cadeau bi moom fas yéene def sama chemise bu baax def sama karab cravate bu ndaw jël ko tubaay si président bu baax toppatoo xale bi defal ko parfum classe bu baax mixé ko waaw bañ mu xool ci xale yi. te jigéen de moom da ngay bëre feem mais loolu surprise la. non dañuy dem resto dem toog waxtaan. loolu di ko wax ni que je l'aime de tout mon waaw te na ma yàlla bàyyi fi ak moom ba un jour compare parle de mariage. soo amee jëkkër ci lay gën a garaaw ndax xale yi dañuy topp ci ginnaaw xam nga xale yi léegi ñu am jëkkër ñi la ñu soxla dañuy topp ci sa ginnaaw xale bu góor bi di daw yow nag defal loo xamante ne du ko gis ci benn xale bu jigéen gis nga jeeg foo toll da nga war di defar ba mu baax. def mel ne tey jour Saint-Valentin da ngay jël ne année bi yëpp yow jour Saint-Valentin la pour bégal monsieur du loolu la la fa teg loolu nga war di def chaque jour lépp rek ci biir xam nga xam nga am na yoo xamante ne nii soit nga def nuisette def say affaire wala nga def say sër def say fer def say yooyu noonu daal soit nga dem ci bu tubaab bi rek wala nga dem ci bu olof bi rek